waa fii ñun dañuy liggéey ay dàllu góor di liggéey ay dàllu jigéen di liggéey ay pochette comme genre yi bàyyiwuñ dara daal ñun ay ude qualifié lañ ay sac sax dañu koy liggéey sur commande loo indi dañ la koy liggéeyal. dama bëgg sénégalais ñuy consommer lu ñu moom ndax boo génnee sous raison bi man damay dem ay foire ci àll bi damay dem Mali. damay dem Burkina damay dem Niger damay dem ba Côte ba Nigéria di yóbbu ay bagages di jaay te ñooñu dañoo bëgg ñun suñuy liggéey dañoo bëgg suñuy produit mais Sénégal rek laa gis ñoom xëruñu ci li seen doomi réew yi di liggéey te pourtant àll boobu yëpp ñun li ñuy liggéey mun ñoom loolu la ñuy wër ma bëggoon nag ñu roy ci ñooñu bëgg suñu yëfi réew di jënd suñuy bagaa jàppale seen doomi réew bu loolu amee dina tax jeunes yi ku bëggoon a génn di booy liggéey fii di ci gis sa bopp dina tax doo génn di xalaat sa xel di xalaat di dem fenn moo bëggoon ñu góorgóorlu ci loolu li ñuy liggéey rafet na et dëgër na ba pare am na qualité par rapport ak tabaski yu fi jot a jàpp. tax daa tombé ak tabaski bi suñu matériel bi dafa yokk trop trop trop ngaa la ndax protocole bi ñu daan jëndee 2000 francs actuellement dafa augmenté ba 3000 francs fooy cause plein talon bi ñu doon jëndee 2000 francs actuellement dafa dem ba 3000 francs lépp lu ñu doon jëndee rek yokk nañ ko. ñun ñuy jaay ude yi ñu liggéey yokk bi ci ñun ndaxte boo xoolee da nga daan am benn somme supposons nga mën ci jënd lu mat. dix pièces léegi somme boobu da nga koy am cinq pièces nga nga ci euh, li nga daan jënd dix pièces cinq pièces nga ciy mën am ca la nga daan am ci dix bi exemple que cinq yi daanaka euh, du doon dara daal li ma la ko mën a waxee daal maanaam boo doon jënd boo doon jënd fukk ah di ci teg tuuti di jaay léegi dangay jënd léegi ñaar fukk ca la nga daan am ci fukk yooyu moom ngay am ci ñaar fukk yi waaw léegi loolu daal. Mm, métti na daal ndax dangay ngay jënd benn objet boo si yow yaa ngi ko daan jënd 1500 francs donte yaa ngi ciy gagné bénéfice 100 francs 200 francs léegi yaa ngi ko jënd 3 ba pare ca même danga nga ci daan gagné rek doo ko ci passé. ah ñu dimbale ñu wàññi rek yomb wàññi taxi yi ba nga xam ne ñii ñu indil matériel pour ñu liggéey dinañ mën a ñëw bu ñëwee duñu mën a yokk matériel pour mu cher te ñu dimbale ñu ci chinois parce que vraiment sonal nañu sonol sonal nañu parce ñun qualité daal yi ñuy liggéey ak ñoom qualité daal yi ñu fiy indi daanaka comme li ma la sànq rek day nuroo mais du doon benn mais nit ñi xamee ko noonu. ba pare nag bi ñu defee loolu ba pare aussi tim ñu bàyyi aussi dàll yeeg jóge Turquie jóge Chine ak lépp di dugg ci dëkk bi nga xam ne non seulement ñoom li mënoon nañu la bàyyi ñu liggéey liggéey bi. wa illaa boog bu ñu demee ba nga xam ne ñoo ngi importé tamit ñu wàññi li ñuy importé muy muy dugg ci dëkk bi parce que ñoom war nañ ko mën a liggéey. waaw mais actuellement bagage yi wax dëgg yàlla cher na te ñun ñi nga xam ne itam ñoo ngi koy jaay xam na ni man dama boole ñaari façon ndaxte dama koy jaay ba pare mais dama koy liggéey mais xam naa ni dafa métti métti na trop ba nga xam ne bu fekkee nii daal lu nu ci mën a dimbalee na ñu dimbali nu ci ba nga xam ne daal oyefal ko daal. liggéey chinois boobu moo ñu gën a gaañ surtout liggéey chinois boobu parce que ñun dañuy jël suñu dàll jënd dàll en qualité bu baax liggéey ko ñoom ñu liggéey loo xam ne dañ koy tej ci marché bi di ko wanteer mu ñëw yem ak suñu dàll nuroo mais qualité yi nag du benn mais nit ñi xamee wuñ ko noonu ñun bu ñuy jaayee junni ñoom ñuy jaayee 2000 xam nga loolu concurrence mënta am ci marché bi te am na si clients yu ci bëri yoo xam lu yomb lañ xam xamuñu lu baax dañuy wax ñu ne dàll dàll la rek. loolu mooy sunu jafe-jafe ci marché bi. bu leen gouvernement bi bëggee jàppale dinañ leen jàppale nañ leen jàppale ci dédouanement beeg lépp ñu xam ni lii nii artisan bi ñoo ko soxla doomu Sénégal ñoo koy liggéey ca ndaxte lii ñuy liggéey nii day dem ba mën naa dem ba waxuma la Sénégal ndegam ay doomu Mali doomu Guinée doomu ay Sierra ne yëpp dañuy ñëw Sénégal di ko jënd si. kon war na noo mën a wàññi importé bi aussi Sénégal yi di ko consommé ndax ay ñeneen ñoo ñoo ngi jóge ci réew ñëw di ko jënd si di ko yóbbu seen réew. waaw parce que consommé la ay àlan wax ca gouvernement bi loolu wax kon nan ci jàppale cordonnier aussi. waaw client yi nag bu ma sañoon dinañ xàmmee ràññee parce que tamit consommé local la ñu wax sa biir réew nga am say doomu réew ñuy liggéey li nga xam ne ci réew mi lañ koy liggéeyee vraiment war nañ mën a consommer loolu bàyyi liy jóge ay bitim réew. parce que man tagguma suñu bopp ñun uude yi de mais li ñuy liggéey moo gën a dëgër fopp liy jóge bitim réew. mais ñi ci bari xamee wuñ ko noonu mais dama leen di ñaan ngir yàlla ak rasulaay nañ consommer local di sol dàll waa réew mi di sol ñaw waa réew mi di sol li jóge ci réew mi c'est important. Euh, mën naa wax artisanat moom Sénégal moom toujours rek ci moom ci sukuraat la toll instant yi parce que vraiment bu njëkk ba. liggéey bi ak euh, ni mu demee woon ak léegi ku nekk xam ne ça parce que léegi kenn bëggatul sax du euh, jàng métier mi ndax méttiwaay bu ci nekk. waaw bari na ay jafe-jafe bagage yi cher na et puis que mayu nu marché beetim vraiment xat na parce que dafa cher euh, seere na ci Turquie parce que ñi di jëlee bagage Chine ak Turquie indi ko dej euh, ba pare ñoom vraiment ñu mën leen a yombal dédouane bi ba nga xam ni ñoom seen bagage day mën a gën a jar que suñuy bagage loolu tim nan ci nan ci jéem taxaw xoolaat ba xam loolu la la mën a kii daal bu fekkee ni dañoo bëgg doomu Sénégal yi liggéey ci dëkk bi waaw